boo demoon tribunal bu Mbàkke war a jaaree boo laajee la ci ëpp cooy suuf la loolu nag xëy na dëkk yi ni mu bindoo nekk benn titre foncier moo ko indi waaye faw ñi defaat ci yitte góorlu ci ji seet danaa am commission boo xam ne danañ ko ci xalaat tëral ko ci ñu seet nu ñu ko gën a noose ba ku moomati kër kenn du ko natt tamit waaye dangay gis genn kër ñetti borom moom ko mm-hmm. mu lënt boobaa ko koy atte sax day jafe ci moom te loolu chef du village sax mooy li gën a sonal ndax te lu nosu tegu ci woon leer rek noppal nit kon ñoom ñu ngi leen di bàyyi loo xel loolu am na ci quartier yoo xam ne coow suuf si dafa bari bu loolu ci ndigalu sëriñ bi joxe na ci ndigal ñu ngi ciy xalaat am na ci quartier yoo xam ne faaw ñu wut lu ma juróom-ñaari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 ñu gën a góor góorgóorlu Cheikh Mouhamadou Mountakha joxoon na ndigal daayiratu Safinatoul Amaan ci ndigalul Serigne Modou loo Ngalla mu toll ci ñaari fii la ko waxee woon itam maa jàngoon leetar ba sëñ Jokk bi di jox ma joxoon leen ndigal ci ay tere yu bari ci dëkk yi tere ya boo ko sëñ bi defee ñëpp dañ caa maas yi di ko def ba mu ba mu jaaxal ñëpp waaye alxuraan dafa wax ne fa zakkir fa inna zikra tanfa'u mu'minin fa zakkir nafaati zikra nit ñi.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 waaye boo dajaloon rek njariñ li ci lay gën a fay moo tax sëriñ bi bëgg ko noonu te xalaatu boppam moo ko xalaatal boppam kon ñiy gërëm daayira Muqaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo yor li ndey lépp di jumaa ji seen positif seen taxawaay bu rafet ak seenu góor ca gannaaw wax naa leen lu lu ne dégg ngeen ko waaye nag loolu amul solo ndax la ngeen def ndigalu sëriñ bi la jumaa ji xam ngeen ne ñoom moomuñ ko ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa moo ko yilif jumaa ji Sëriñ Tuubaa moom ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa moo yilif jumaa ji mu nekk ci loxoom moo leen fa tege baatam moo leen fa bàyyi kon sëñ caa def wala ñu xalaat ci loxo ne suñu diggan la di gërëm daayira Hizbu Tarxiya ci njiitu lu sëriñ Youssou Diop di ko sant ci taxawaayam bu rafet ndax nii ko ni ma ko waxee fàllu ba nga jottali ko taxawaay organisation bi lépp ci loxoom laa ko teg te def na ko ne leen ko sëriñ yi daa waxee rek isa isa ayqasatka xurubul ada fa nabbi ila amin summa nam Cheikh Mouhamadou Mountakha nee ñoom ay soldat lañ rek duñ tànn di gërëm waa Rawdu Rayaahiin itam dañuy ay jàmbaar xam ngeen ni mu demee ci yoon bi ni demee ci sëriñ bi waaye jaay nañ lépp jënd ko taalibe di liggéeyee sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam te xam ngeen ne sëriñ Tuubaa léppam xam-xam la ndax dëkk bi ba mu koy sanc daa wax ne li taallum wa taalim kanzil kitaab wala xadiis wala adab la jemo fiddati wala jemo saab kon ñoom liñ féete dara ëpp ko solo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkee Sëriñ Tuubaa mashru am bi gën a rëy mooy naalam bi gën a rëy mooy université te seen loxo ko def nañ ci ba nëgë bu tabax yi àggee la programme ba la ñu war def lépp jiitu na ñu ngi leen leen gërëm ci li ñu liggéey ak Serigne Touba wàllu boobu liggéeyam sa safinatu amaan tudd naa leen léegi ñoom itam al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar ndax am na ci loo xam ne état mënu caa dugg ndax lu waaye réew mi téréwu ko waaye lépp dinaa ci jël sa tuuti ñoom itam seen taxawaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm sëñ Modou Lo Ngabou ci taxawaay bu baax a di gërëm daayira Touba ca kanam ñoom itam nooru daari yàlla def na nooru daal di sax maa ko ci bind. Mhm. ngir ndax boo Touba ci kanam rek lañ bind may nañ jiite leen Noor daal yàgg na. 2016 wala 17 la fii ne woon sax ci saal bi ma toog. Mhm, mhm. ñoom itam bañ juddoo léegi yàggut waaye seen taxawaay ak seen yitte ak seen posture ñi ngi góorgóorlu ci dëkk bi la Cheikh Abdoulaye Mbacke daa wax ne lu ne fàng diisu ko woon ko amul bët te ko amati bët. jërte woon dara la du gis. di gërëm waa Xuddaamu Xadim ñoom it ci seen yitte ak seen posté ak seen taxawaay ak seenu jaayante ci Sëriñ Tuubaa ngir sàmm noonu noonu ji ak mboolem daayira yëpp nag xam naa ñàkk ñu ma fàtte waaye xamul sëñ bi doy na tudd gi amul solo li am solo mooy li ñuy jëf ngir Sëriñ Tuubaa di yéemaat Sëriñ Tuubaa rek ndax sous ngi ni toog te bu ñu wowoon gouverneur bi mu toog ndax ndaje ma ñu fi njëkk def ginnaaw ba sëriñ bi jox ndaje bu njëkk ba ci jiiti réew mi teewe na ko mm-hmm. may sa topp ma njëkk defaat fii te jox ndigal Baye Fall yi boo gouverneur dañ ko mu ñëw mm-hmm. kon loolu nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek daa wax ne woo goñ daa woo Sëriñ Tuubaa ci njaarim mm-hmm. gouverneur di euh, commandant di ko mu leen di wis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 di leen ñaanal fajuk aajo leen ñaan ngërëmu Sëriñ ci lii ñu def ndax li ñuy def lépp kat yaakaar ngërëmu Sëriñ képp lañ ci def te Sëriñ moo ñaanoon ne waq di xawaaija li si ne daamoo fii xidmati wahab lahum maaraamu tañ xam ne nag eh, liggéeyal Sëriñ ci dëkk bi ñëpp la war ak Cheikh Ibrahima Faat daal wax ne liggéeyal Sëriñ war na ñëpp te du wàcc kenn kon liggéeyal Sëriñ Tuubaa ngir la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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh